xam naa maa ngi tuub ci kàddu yi ma jël waaye maa fi gën a néewle lépp maa fi gën a néewi at gën fee gën fee néewle lépp wax dëgg yàlla waaye comme ndigal la ñu jëfe ko rek wàllu organisation bi ngeen xam ne yéen a ngi koy sàkku ñu leeral leen ko ci jumaa ji nga xamante ni ñu ngi ko fas yéenee ibbi suba muy le premier janvier 2021 euh, miladier di tombeek le 17 jumaadal ula rakatiga 1442 fii ci pàkk bu barkeel muy euh, bu xotal mu bare ko njenn lagan di dëkk bi nga xamante ni sëñ Tuubaa moo fi yabaloon maam Cheikh Issa ne ko demal njenn ma fekk la fa ak la gën bis bi nag taxawaay bi nga xamante nii jox nañu si ñu war koo taxaw bu baax a baax ànd koog mbooleem kuréelu njenn yëpp rek euh, li ci war mooy li ko sëñ bi bëggee rek ñu defee ko noonu mooy yar ak teggin taxawaay bu am bu am solo bi nga xamante ni bàyyi ko noonu bàyyi ko noonu bàyyi ñëw nañ jóge jóge nañ Dakar ñu jóge Touba ñu jóge ci gox yi fasantikoo yi bi nga xamante ni agsi nañ def nañ benn tënk bu am solo ci jumaa ji waaw xool nañ jumaa ji xam ne kat am euh, porte yi fi nekk fukki porte la ak benn waaw bu ci nekk dina am ñoo xamante ni fa lañ leen di teg ñu ñu taxawal loolu ci programme suba bi ginnaaw animation jumaa ji danañ ko ubbee tamit njàngum alxuraan bu kawee kawe boo xamante ni ay kaamil yu bari dinañ ko fi jàng ak ay ak yu bëree bëri waaw buñ demee nag ba waxtu woowu ma wax ki nga xamante ni mooy jàllale kii bi dana génn waxtaan soññi taalibee sant nag ki nga xamante ni moo tabax jumaa ji muy El Hadj Ababacar mbay ture muy liggéey boo xamante ni ci juróom-ñaari at la durée waaw te boo xoolee jumaay njaareem bi nga xamante ni moom la jumaa ji dippee moom it ci juróom-ñaari at la yooyu la diire te li ci te te daf ko nduru lépp bàyyiwul dara waaw te li ci gën a neex te gën ci am solo te gën a te te te te nekk loo xamante ni taalibe bu ne war na koy fàttalikoo mbooleem loo xamante ni si Ababacar def na ko mu nduroog jumaa jee lépp lu mu ci def wàcc bàyyi na ci benn mètre ngir ormaale ko jumaay njaareem dimension bi lépp loo ci jël rek wàcc na ci benn mètre ngir ormaale ko jumaay njaareem wax jooju dafa nekk loo xamante ni lu rëy rëy la li mu koy duppi duppi duppi ormal nañ jumaa jële kon mu nekk loo xamante ni lu am solo kon sëñ Issa sëñ Tuubaa da koo fay ginnaaw loolu bi nga xamante ni waxtaan nañ bu waxtaan wi noppee rek dañuy ibbi porte yi ñu dugg ci jumaa ji am na ñoo xamante ay badge yu ñuy def yu mandargaal yoo xamante ni kilifa yi bu ñëwee ñu mën leen a dugal lu Mbàkke gi nga xamante ni ñooy suñu lépp ñooy suñu lépp ñooy suñu lépp yoon wi ñooy jiit ca kanam ci mihrab ba fa nga xamante ne minbar ba fa lay nekk ànd kook imam bi nga xam ne moom la sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général de Mouride yabal waaw foofu xayma nañ place yi xam nañ nangam la ñooñ bu ñëwee danañ leen dalal foofu bi ci toppaat mooy bi nga xamante ni mooy dajale cheikh yi nga xam ne mooy cheikhu sëñ Tuubaa yi ak ñi nga xamante ni mooy mbokki njenn yi ak cheikh yi nga xam dañoo yaakaar Cheikh Issa Diène troisième bi mooy ñi nga xamante ni mooy ñun mbokki taalibe yi nga xamante ni fale fale fale ñuy jullee nga xam ne bu jumaa ji feesee ñu mën a xool li wër jumaa ji mën ñu mën faa nekk ci message boobu nga xamante ni nag kii koy jàllaleel sëñ bi dana ko wax bu ñu jullee ba nopp ba lépp mat ci la ñuy xewlu joxe añ yi ñu noppee nag ñëpp daal delluwaat sa barab yi nga xamante ni fa lañ fa lañ fa lañ nekkoon